ñu tàmbali xabaar yi kon ak lettre bi nga xam ne nag euh, moom la président de la république euh, bind fonctionnaire yi di Bassirou Diomaye fay di sàkku ci ñoom nag euh, jub jubal ak jubbanti Euh, farlo bu baax a baax ci liggéey beeg euh, am euh, Pastef Ousmane Sonko nag di gën a dëgëral lettre boobu di sàkku ci ministre yi ak secrétaire d'État yi ñu rendre ko compte nag ci ni mu gën a gaawee ci leetre boobu ndax àgg na fi mu war a àgg yépp ci biir administration di fonctionnaires yi ak yeneen agence yi nga xamante ne ni ñoom itam ci état bi lañu ñu bokk loolu nag mu daal di xam ne ci ab lettre boo xam ne ñun tey ji lañ ci jot ci ajjuma ji mu doon nag lettre boo xam ni waxaale nañ ci ni ñuy def ba aar ñi nga xam ni ñoom ñooy euh, lanceur d'alerte yi di ñi nga xam ni ñi ngi ci biir administration yi xam lu wér ci loo xamante ne nii nag euh, mi ngi am ci lu ñaaw te warta demee noonu ñu daal di koy euh, yoole ñoo ñooñu itam ni ñuy def ba daal di leen di dimbali. passation de service yi di wéy ci ministères yi jam ñaajo moom jeex na fi mu ne nii ministères yi yëpp tey jii la ñu mottali ci ajuma ji seeni i passation de service Serigne Mbaye jox na la léegi nag Cheikh Tidiane Dieye. mi nekk ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Mansour fay jox kii di El Hadj Malick mi ko wuutu léegi ministère des transport transport yépp la boole Abdou Diouf Diagne. juróomi at ginnaaw bi mu nekkee ci ministère bi ñu dénk wàllu ndox ak assainissement Serigne Mbaye Thiam daal di jébbal lenge ngay Cheikh Tidiane Dièye daataa moo dem nag daal di nay bàyyi si taabalam ay projets yu bëri yoo xam ne bu ñu ko nattee ci wàllu koppar dina toll ci trois mille cinq cent cinq milliards de francs CFA. je laisse entre maa ngi bàyyi sa loxo nag lu tolloog ñeent fukki projet yoo xam ne tëgg nañu ko ba pare bu ñu ko xool nag ci wàllu koppar daal nay mat nag lu tolloog trois mille cinq cent cinq milliards ci suñu xaalis ñeent fukki projet yooyu ma lay wax nag ma ngay xamal ne la lu tolloog ñaar fukki yi nag jot nañ financement yi te it daal dinañu koy sécuriser fi mu toll nii ñëw rek daal di doxal moo ci des. 1652 milliards de francs CFA. jëwriñ ju yees ñu dénk wàllu ndox ak assainissement di xamle dina sukkandiku ci lu ni mel nag ngir daal di wéyal liggéey bi am na tamit ay pexey boppam. mais je continuerai dans cette voie. pour un dinañ sukkandiku ci loolu nga xam ne moo fi nekk wante tamit dinañu wéyal suñu ay pexe yi nga xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba daal di xeex nag ñàkku ndox ak assainissement gi nga xam ne nemmeeku na ne jafe-jafe bu réy la ci biir réew mi bu boobaa nag dina mën a saafara coono yi nga xam ne askan ñu ngi jànkonte ak moom saa su nekk dañu koy xamal waxtu wu ne daataa ñoom Mansour fay nag daal dinay jébbal lenge yi El Hadji njaay Ndiaye ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu dem ak dikk ci jaww ji ak ci suuf si RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse moom génn na tey jii nag euh, joxe na lenge yi nee na nag juróom benn fukki junne ak juróomi emploi yi nga xam ni moom mooy euh, xëyu ndaw yi 65000 emploi yi euh, diggante 2021 ak 2020 ak jeexitu mandaawu Macky Sall mooy li ëpp doole ci jaar jaaram foofee amul nag ci yorinu réew mi doxin wi. benn yoon buñ ko mës a joxar bee ci loo xamante ne nii nag euh, def na fa loo xamante ne nii lu ñaaw la mu ni moo tax am xelam dal bu baax baax ci dem gi muy dem euh, ki mu jox lenge yi nag di Khady Diène Gaye di sàkku ci euh, ndaw ñi ñoom itam ñu góorgóorlu bu baax a baax xaral seen bopp seen tànk tubéy ci ni ñuy amee liggéey Euh, passation de service bi tey ci ngoon la woon ca ministère de la jeunesse Abdourahmane Diallo. Pape Malick Ndour di xamle ni lu jëm ci wàllum jub jubal ak jubanti xaaruloon président de la république Bassirou Diomaye Faye daal di koy wax balaa muy def li ni mel. ci wàllu yorin bu rafet tamit mission bu nekk ñëw na fi te yàlla dogal na macha allah amuñu benn souci jébbal nañ la ay rapport yu bëri yoo xam ne am nga ko da nga mën a gis te bu soobee yàlla rapport yi ne corps de war nañ ko publier ñu ngi toog di xaar avec impatience pour ñu publier ko. ministre de la jeunesse ba woon. di dalal xel yi ci projet Prodac yi. bu yàgg ba DAC de première génération lañ doon wax. tey ñu ngi ci DAC de seconde génération. tey soo demee Fafakuru ak Boulel ak Dodji ak euh, Toubacouta la nga am DAC yi foofu travaux yi démarré nañ ko loolu bàyyi nañ. muy yokk di xamle ni. 46 maisons de jeunesse citoyenne 40 yi tàmbale nañu liggéey yi te lu jëm ci wàllum xëyu ndaw ñi lu ëpp 65 000 doomu aadama jox nañ leen liggéey diggante 2021 ak 2023. ministère bi nag li ñu fi def bëri na programme xëyu ndaw yi ñëpp gis nañu résultat bi maison de la jeunesse nag xaalis bi mu ngi fi ki koy construire mu ngi fi yëpp boucler nañ ko démarré nañ ko sur les 46 démarré nañ 40 yi six yi rek moo démarré te lu tax démarré wul woon mooy foncier moo ci amul jëwrin bu bees bu yor wàllum ndaw ñi muy wax ni xam na lu koy xaarandi ci loolu mu ngi woo ndaw ñi ñoom it ñu daal di dugal seeni loxo bu projet bi mën a sotti ku ci nekk na nga xool li nga xamante ne ab ndaw yéen ndaw yi man yéen lay waxal lan nga mën a defal sa askan lan nga mën a defal sa dëkk lan nga mën a defal sa réew nga soogaa xalaat sa bopp kat defal sa réew yow daa ci gis sa bopp obligatoirement. Pape Malick Ndour daal di jox yenn ci ay lenge yu mu yoroon joorin bu yor wàllum emploi di Yankhoba Diémé. ñii di waa santé ñoom itam daal nañuy euh, joxante lenge yi ca ministère ba tey jii nag Ibrahima Sy jëlee ko ci Marie xemes ngoom euh, moom Marie Khemesse ngoom nag mu ne li ñu def ci wàllu chirurgie ak don dorgan don d'organe nag di euh, kon mën a jël cërub nit daal di koy weyal keneen. Euh, bokk na ci yi ëpp doole nag ci jaar-jaaram foofu ci bopp ministère bi Salimata Aw Marie Xemes Ngom Ndiaye ak ki ka nar a wuutu di docteur Ibrahima Sy tëju ay waxtu yu bari ci bureau yi ngir waxtaan li ko waral dossier yi nga xamante ni moom la nar teg ci loxo ki koy wuutu bari loolu ci noonee ki fi nekkoon jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram di wax fa mu yegsee ci ministère bi fa mu ko fekk ak fi mu tollu jamono yi. def nañu ay jéego ci lu jëm ci wàllum euh, don d'organe ak chirurgie tey tamit euh, def nañu lu ñu mën rek ngir jëmale yëf ci kanam te yaakaar nañu ki nga xamante ni moo wuutu jëwriñ ji yor wàllum wér yaram dina yóbbu fii fu mu gën a kawee. ki ko wuutu di docteur Ibrahima si di rafetlu liggéey bi nga xamante ni moom la Marie Khemesse Ngom Ndiaye def mu ni nag. ku mu miinanteel la ndax jot nañoo sekk liggéey ci jamono yi weesu mu ñi xamal nag ni jéego yu bari def na ko wante moom it lu bari mi ngi koy xaar te mi ngi ciy bàyyi xel bu baax. sas bu diis la wante yaakaar naa ni fekkee ni ñëpp jàpp si ñuy liggéey ci santé si ministère bi partenaire au développement yi organisation syndicale yi secteur privé bi famille yaakaar naa ni yan bi dina oyof comme madame la ministre lu ko waxee léegi. te dinañ mën loo xam ni def nañ ko fi mu nekk jéego si Sénégal si wér-gu-yaram yaakaar naa ne ñun suñu defi mooy lu ko raw population yi continuer ko jëriñoo. ci noonee ñaari ministres yi ku ci nekk waxal sa moroom lu baax collaborateurs yi daal indi ay cadeau yu bëri jébbal ko ki nga xamante ni moom mooy ministre bay dem di Marie Khemesse Ngom jaay kookee tamit jël équipe ba mu doon liggéeyal dénk ko ka ko wuutu ngir ñu jàppale ka ba fi mu bëgg eggale Sénégal ñëpp dugal ci seen loxo ndax Sénégal képp moo ciy gañe gouvernement bi nag léegi day soppiwu toogaay plan Sénégal émergent bi nga xam ne moo nekkoon cëslaayul politique publique yi lépp nag ci la ñu ko daan roote day soppeeku léegi nag euh, li waa Pastef yi tuddee projet bi moom nag euh, moo fi nekk ci la ñuy euh, soppee nag doxinu Sénégal ak programme ak projet yu mag yi nga xam ne moom moo nekk ci biir ndax loolu bailleurs yi dinañu ko nangoo financé te ñu déggoo woon ak Sénégal ca lee ci jëm ci at yu bëri Mor Gassama ni waaw waaw. yi souvent boo indee projet mën na projet mu ngi bëri comme ñu jël engagement yi projet yëpp gis na ba xaalis yëpp mën nañ ko financé buñ paree ñu ne lépp lépp duñ financé dana toll temps ci ay ça veut dire que mën nañ jël engagement xamante ni bii lañ ca financé lañ ca génnee gu bëri par rapport li ñu war a génne moo tax comme ni ñu toogee nii président euh, Bassirou Diomaye Faye loolu la premier ministre Ousmane Sonko ne ko pour na saytu ministre bi ministère yëpp xool exactement lan moo nekk foofu ak gafa réew mi fu mu toll su boobaa ci saytu boobu ñu def noonu buñ ko jàngatee daan gis ne effectivement ci PSE bi promesse de financement yi temps la woon mais Sénégal pour l'instant lii la ci jot waa te li mu ci jot aussi lu nekk dinañ xam fu dugg waaw su ñu ne bu demte ne pare nañ ci loolu nag yi nga xamante ne bi financement yi war a ñëw la ñu sont pas obligés que projet yan ci dessiné woon ñu financé ko ci ñoom lañ xam jàpp ne may ngoon ak seen gis-gis mën nañ ko cee bàyyi dem mais seen gis-gis dañuy taxaw seen gis-gis dem waxtaan ak ñoom encore ne leen ah ñun kat finalement lii ak lii lañ bëgg donc bëgg dundale changement dafay am parce que quand même financement yooyu yëpp daanaka nekkul euh, bailleurs yi ak benn doomu aadama mais bailleurs yi ak état du Sénégal voilà comme nag Sénégal yi seen bopp ñoo yi gis-gis ne ñun kat la la ñu ñoo xool léegi gënalu lii moo gënal kon bu dente ne ñooy ñëwaat nañ toog di waxtaan ak ñax nga xam ne ñoo a financé leen lii kat lañ bëgg ngeen ngeen orienté bàyyi leve lu waru warul mën a Mor euh, Gassama économiste la ci kanam tuuti mooy doon sunu gan ci njeexitu xabaar yi fukki minute ak benn gannaaw juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Media. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. xëccoon suuf ca jàmm gan si kàbbaaw. lu toll ci téeméeri kër ak fukk ñu ni daax cee am fukk yoo xam ne dañ ko tayla woon ca banque ba am ci fukk yoo xamante ne nii toj nañ ko am ci yeneen yoo xamante ne nii nag fi mu ne nii itam seen borom nekk na ci ak jaaxle lenn ca ñoom ñoo ñooñee nag di ña nga xam ni ñoom ñoo ko moom ni nag dañoo ko jote ak ñu ni nag seen maama moomoon suuf sa yor ay titre te loole nag indi na coow ba centre gendarmerie ak police dugg ci lu dul benn du ñaar Euh, Salamata Ousmane Diallo. problème bu yàgg la 1960 ba tey jii la ñu daal di tàmbali ay borom kër yu bari day dund naqar boobu ba tey jii di wax ni ay police wala gendarmerie saa su ne di ñëw ci seen kër yi di toj ak a daaneel li ni mel nekk lu metti seen xol yi ba tax ñoom ñi mënatuñ ko dékku Ousmane Diop moom moo yor seen kàddu. ndax à chaque dañuy toog ñun ñi indi fi assignation gendarmerie ñëw wër suñu dëkk bi ñu expulsé ay doomu aadama jënd leen seen kër yi nga xam ne sunu maam ñoo ko sanc. ndax loolu ndax dañoo jël kër yi jaay ko ñeneen ñeneen ñan ñeneen ñoo xam ne tey ji dëkkuñu fi dañ leen wax terrain di jaay ñu ne dañ leen a jaay kër yi fii jàmm gën képp ku fi ñëw ci di génnee kenn kër suñu bakkan lañ ci bi ëmb ñi yeewoo ci biir jàmm gën yëpp mu ngi daal di ñëwaat ñi nga xam ne ñoom ñoo ci loru nit mënul mënul ni dafay jënd kër ñaari yoon nga fay ko ci Samba da ngay fayat a mat téeméeri nit ak juróom ñeent teg nañ ci loxo am na ñu xam ne dañu démolir seen kër sax am na benn maire bu nekk fi maire Ndiago dafa tabax këram ba pare toxu si amu fi un mois ñu ñëw toj kër gi ba mokk rumbax ba léegi ba yàlla kenn du fakkiw jafe-jafe bii nekk loo xam ne métti na seen xol ba tax ñoom mënatuñu ko dékku ñi yeewoo ci jàmm gën di woo nguur bu yees bi mu daal di saafara seen jafe-jafe yi laataa leneen di ci juddu. toj suñuy kër di ñu génne. fa mel ni ñun bokkuñu ci dëkk bi ay madame taami lañu wala ay njudd jéeri lañu. monsieur le président audience sañu bëgg. dañoo toog ak yow wax la suñu problème dëkk. ñoom ñëpp ñu daal daje ca place publique bu jàmm gën ginnaaw ba ñu jullee àjjuma ba noppi imam notable de ci maire yi ak ndaw yi ñoom ñëpp daal di taxaw temb ne dootuñu may kenn muy dugg ci seen dëkk boobee di toj mbaa di yëkkati kenn ci këram. ku fi ñëw bëgg ñu attaqué ñu attaqué ko que soit état la rajo Futurs Médias. kayilif gox ba nag euh, député Pastef la di Cheikh Aliou Bey mooy maire ba nee na nag lépp nag danañu ko rëdd ci aw kay daal di koy jébbal président de la république bu ko defee mu xam li xew foofee lu mu doon mën cee sàkk nag saafara moom euh, Bassirou Diomaye euh, fay moom député bi nag di Cheikh Aliou Bey nee na combat bi nag combaam lay doon ba ñu delloo kër yi nag seen i borom ñu teewlu ko. waaw li ñu wax c'est clair mooy document yi li ñu fi wax nii. danañ ko tënk teg ko ci ay loxo yu wóor. man lekkuma li gars di wax nee naa leen nekkuñu si wax ay gars nañu arrêté nañu fay li ñu jot a yàq leen wax borom kër ñu jot a yàq fay ba pare joog a arrêté moom day am à la kulli fii ko fi dugg ñu duñ arrière on te fera face même pas à négocier ou à ñaan ñaanuñu saraxuñu dañu ne suuf si nga xam ne droit 18 ñoo ko moom tabax fi ay kër def fi 1963 lañ fi ñëw ba maintenant presque on est à 60 ans ñu Diamaguène a pris il faut l'assumer li wax nag mooy muy Diamaguène muy Mbour muy Tobago muy feneen foo xam ne yéen ngi fay toj ay kër nekkoon ay prédateurs fonciers vous nous maanaam danañ saytu suufu Sénégal bi yëpp li ngeen jëloon ci littoral tabax fa ay kër te wala nga ko foon tabax la ngeen jëloon ci ay espace yoo xam ne foofu kenn war foon dëkk la ngeen jàppoon di ko jaay di ko jaay di ko passé seen dëkk kenn ku nekk dina ko fay dërëm fistin ba mu jeex tàkk liggéeykat yi ONAS euh, ñiy euh, gas euh, rigole yi di ko xeet ñoom nag seen directeur général liggéeykat yi wax ni moom itam bokk na ci ñi nga xam ni jël na ay nit ñu bëree bëri ay recrutement daal di leen di indi foofee ci bi nguur gi daanu Euh, boole kook yorin woo xamante ne ni itam muccul ayib euh, ñaawlu nañ ko bu baax a baax ñu ambaloon ci tey jii ndaje ak taskatu xibaar yi Abdoulaye Ndour ñu wóolu ko doyloo ko teg lépp ci suuf nekk yoo naxee mbaay la defu ci dara ñu dajaloo ci biir euh, direction général bi le ñi lee di liggéeykatu ONAS yi di naqarlu recrutement yi nga xamante ne directeur général bi le di Mamour Diallo def na ko Mbaye Ndoye mooy secrétaire général syndicat bi le ay nit dañu nekk Ah ñu da ngay gis ñoo xam ñëw dafa leen salaire bu triplé yow sa salaire te yéenay dem même liggéey bi dëgg la ñoom ñuy ñaan ñu yokkal leen li nga xamante ne moo di seen prime de risque yi le jëlee ko ci mille francs yi mu nekk c'est de mille francs depuis de trente ans alors que tout le monde niveau de l'exploitation nous courons quatre risques risque électrique mécanique donc nous la revalorisation de ginnaaw bi leen njiiti réew mi fi nekkoon na joxoon na ay terre ya nekk ca Padoa ñoom ñile di liggéeykatu ONAS yi di ñaan kilifa yi fi nekk ñu dimbali leen ba ñu jot seen suuf yooyee. leeral yooyu li may wax ñoo bi di ko wax mooy que ni foqartiwuñu alalu jàmbur jaay ñu kenn doole lu ñu moom la ñu demande ko président jox ñu ko par décret présidence affect ñu tax li ñuy ñaan mooy les nouvelles autorités ñoom dañu ni dañuy xeex injustice li injustice la bu ñuy subir de plus de vingt ans au cours de ces terrains. syndicat bi di ñaan ki fi ne di njiitu réew Bassirou Diomaye Faye ngir mu baral audit seen société bile. njiitu réew moomu di Bassirou Diomaye Faye. Euh, moom nag euh, moo ne woon ci ab euh, discours message à la nation léegi nag li ñuy jox baykat yi dinañu fexe ba mu bañ a takk yàgg ci ña nga xam ni ñoo ko taxoon a jóg bañ a des ci loxoy opérateurs yi. loolu nag kii di Bachir Ba nga xam ni nag moom moo jiite aar sunu moomeel nee na mën nañoo dénk armée bi nag kon lu jëm ci séddale gi bu ko defee nag tas commission yi nga xamante ne nii ñoom seenub liggéey dara baaxu ci. Euh, te itam subvention bi sax mën nañ koo dindi ut ay bitig yoo xamante ne nii dañ leen koy sampal fu baykat demati la muy soxla yëpp mu daal di ko fay mën a fekk jëfandikoo ko ñu déglu ko ci jokkoom ci téléphone beeg Mamadou Omar Ba. système bu xaw a màgget bu xóot la fi fekk boo xam ne ñun yàgg nañ di wax ne système la bu ñu organisé te ay bandi ñoo ko organisé. loolu nag dindi ko dafay xaw a jàmp ci année bii bii bii ñuy wax su fekkee ne daal bëgg nañ ci am ndam li ma leen di njëkk a conseil def ko mooy na ko armée bi séddale. maanaam commission bu nekk ci commune bu ne mu ànd ak ndaw loo xam ne dafay nekk euh, ndawal gendarme gendarme sax waxuma ko mais armée bi ci boppam ñoom militaires yi ñu ànd ak li nga xam ne ñoom ñooy jiw bi taxaw yor seen bic ak seen kayit li wàcc ci tonnage ñu tudd ko bind ko woo borom dëkk yi ñoo ñuy jox leen ko burut loolu li fi nekk nga xam ne moom mooy ay commission yu yàgg dañu am ab xaritoo bu màgget bu yàgg lool seen diggante ak ñi nga xam ne ñoom ñooy opérateurs yi waaye seen diggante ak chef de village yi ba nga xam ne bu fekkee ne ci ñun rek lañ ko bàyyi du yomb subvention yi bokk na ci li nga xam ne ñun dañoo proposé ne ñu dindi ko parce que mbir mi am jaay la ñun dañoo proposé en rasul moo mel ne nañu ut ay boutique teg ko ci commune bu ci nekk teg fa bépp produit boo xam ne baykat bi daf koy soxla mu nekk ay jiw yoo xam ne qualité lay nekk mooy base ak pré base pré 1 ak euh, ak r ku ci nekk li nga bëgg nga dem jënd ji ko parce que njaay la sénégal yi dañuy fàtte ne état mayewul euh, li nga xam ne moom mooy jiwu daf ñu koy jaay donc loolu nag dañu koy jaay kon nañu ko teg ci ay euh, boutique yoo xam ne dañ koy certifié dafa jëlee lépp loo xam ne dafa jëm ci intrant Youssouf maa ngi lay nuyuwaat. di la fay Macoumba di nuyu ñëpp. tàggat yaram ñuy tàmbale. ak football vingtième journée Ligue 1 bu Sénégal euh, suba ci samedi bi lay door ak ñetti match yi am ci programme bi bokk na ci derby bu Petite Côte 16h30 euh, ca Stade Lat Dior bu Thiès jambaar mi mujj ci classement bi mooy dalal Stade de nekk avant dernier ëppale ko benn poñ euh, ñii di waa Dakar Sacré Cœur di dalal jamono Fatick ca stade municipal bu Ngor. US Goxé mooy dalal Tëngëj FC cosaan municipal bu Padois waa Tëngëj kon jamono yi ñoom ñooy leader ëppale juróomi poñ ki nekk ci ñaareelu place bi di jaraaf bu Ndakaaru ba tax na kon ay supporters am am yaakaar ni équipe bi dina des ci yoon bi mu nekk su ko defee ñu daal di jëli kon lii di bi mam Mambaax Diop euh, di Madi bokk kon ci comité supporter Alerio ñu déglu ko. résultat yu baax yi loolu moom ñu en tant que supporter xanaa du ñu def lu di ko gën a di wax bi ñu bañ a teggi seen tànk parce que ku bëgg a jël bi moom. yaakaar na danga nga war a euh, def le tout bay am benn régularité di enchaîner victoire yi li des si championnat bi nag ku ne xam ne ne championnat fi mu toll nii bon set journée moo des bu subaa la ñuy joué euh, suñu vingtième journée ak contre Gorée di ñaan yàlla rek euh, yàlla may ñu si ndam lu ndam ndam lu rëy fi mu toll nii moom wax dëgg yàlla ñun supporters yi moom ñu ngi si à fond daal ñu ngi ñu ñu ngi ñu ngi def lépp ñu mën ñu ngi ñu ngi pousse bu ngeen xoolee si stade yi sax fi toll nii moom daanaka ñun moom ñun rek la ñuy dégg bon ñu ngi ñu ngi ñaan yàlla daal euh, li reste si championnat bi moom ñu ñu bañ xool si ginnaaw parce que ay équipe yu mag rek boo xoolee ñoom ñoo nekk suñu ginnaaw te ñoom aussi ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi garder le rythme di xaar suñu faux ñun daal ñu ngi am njott ne te ne si championnat bi yëpp war nañ mën a gagné match yi si yi si des yëpp comme ça mën jël championnat bi parce que ren suñu objectif mooy dem Ligue des champions. di supporter kon yu Alerio bu euh, Tëngëj FC di fekki Gorée euh, suba yeneen match kon euh, dimanche lay doon diggante Linguère Génération Foot Sonacos AS Pikine Jaraaf mooy dalal Casa Sport ca Ngor Guédiawaye Football Club US Ouakam ca stade Amadou Barry Ligue 2 bi ñoom it nañ door ni ki suba seen vingtième journée bokk na ci match yi Snaps Euh, Oslo Amitié FC Duc mooy dalal HLM Thiorassane Djigo Kër Madior euh, Demba Diop FC lay dajal euh, ci stade Caroline Faye ñu waxtaanee kon joxante lenge ci ministère des sports amoon kon niki ki tey diggante Mame ak ministre bu bees bi di Khady Diène Gaye mu daal di kon yëkkati ay kaddu wax tamit mbébétam ci boppu ministère boobule ñoo ne ceeg solo ci am gannaaw ñetti ayu bés yi mu nekk ci bopp ministère des sports moom Mame Mbaye Niang daal di nay jaajëfal ña mu àndaloon ci liggéey bi waaye itam yokku ci ne département bile teg nañ ko ci ay loxo yu wóor. laajaw ma woon kiñ fi fal waaye ki ma waxtaanal ci kaw dégg inspecteur général bi wax benn témoignage bu mu déggee ci keneen ak laaj yi mu laaj ci dossier bi da nangu ni que xaw ma lan la département bi xam na am na li mu bëgg xam na fi mu jëm.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 quatre mu ne woon na inspectrice des sports moom mii nga xamante ni moo nar a jiite département bile xam na bu baax la koy xaarandi ak la acteur sportif yi di xaar ci moom Hady Diène Gaye. xam nañ ne secteur sport am na lu fi jot a jàll am na lu ñu fi jot a def yëf yi tamit des na chantier yaa ngi fi action yaa ngi fi des na lépp la ñu xamante ne dinañ ko fi teg nañ koy defi dans le cadre d'une concertation nañ fi instauré benn dynamique de concertation ak acteurs yëpp ak ñu ci bokk duñu bàyyi ci kenn te lépp lu def defi danañ ko defi ci ñu ko yoon tënkee ak les valeurs de notre république. ministre bu yees bi nag biral na ni tàllal na loxoom acteur yépp ngir seeni mbëbët mën a antu te looleet même bu fekkee sax ni daf koy booleek bu jeunesse ak culture. Soda Thiam ñu dem ca France Red sar jege lool Ligue 2 bi club bi nga xamante ne kon fa la Cheikh Ndoy ak Aline Fall di jouer euh, seen entraîneur di Habib Bey ñoom ñoo nekk ci bopp classement euh, national foofule ca France euh, ci 29e journée bi tey Red Star dafa daan Marignane Gignac ñaari bal ci dara. juróomi bëccëg moo des laata kon championnat amateur bi di jeex foofu la ca France Red Star moo jiitu ëppale fukki poñ deuxième bi di Niort kon bu saison bi jeexee ñaari jiitu ñooy yéeg ci Ligue 2 ca France boobule benn neuvième journée Ligue 1 ñu doon door tey tamit euh, Metz jàppale ni moo daan lance ñaari bal ci benn euh, côté euh, Metz défenseur sénégalais bi di saadi bu Sané attaquant bi di pap Diallo nekkoon titulaire pap Ndiagallo ak Lamine Camara ñoom ci ñaareelu période bi la ñu dugg ci côté lance nag Nampalys Mendy ci banc bi la nekkoon jotul joué kon Metz moo gagné ñaari bal ci benn. Betis Séville Youssouf Sabaly nekkoon ci banc bi fubalul moom moo daan Celta Vigo ca Espagne ñaari bal ci euh, benn ca Italie